sëñ bi Mody alias tonton Sène ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ñu ngi lay fay ñu nit mhm. ñu yem waxtaan wi jamono ji nga xam ne àdduna wérngel képp ñoo ngi màggal bés bi ñu jagleel théâtre euh, tey mhm. justement benn commentaire ci bés bi euh, ak euh, nuñ koy célébrer ban commentaire nga ciy def. li ma wax mooy bés bi ñun dañu war mën soxal. Mhm. ñun ñi nga xam ne ñoo ci yëngu. te itam war na soxal sax euh, bépp doomu aadama war na soxal àdduna. Mm-hmm. loo xam ne eh, euh, nit ñi dañ koy seetaan. di ci mm-hmm. bëggee. Mm-hmm. luñ ci mën a jàng. wane aussi suñu cosaan. waaw kon théâtre moom maanaa ne dafa bokk te am ca solo nag. waaw ndax mën na cee indi lu bari. ci kaw nag ñu jox ko maanaam euh, gëddëm. tey lan mooy théâtre parce que nag euh, euh, koo dégg même li ñuy seetaan ci télé yi dañ naan théâtre théâtre lan mooy différence entre théâtre téléfilm yeeg série yi. Ah, mais théâtre mooy loo xam ne boo koy def da ngay jàkkaarloog ñi nga xam ne eh, ñoom nga koy defal. mooy spectateur am na télévision moom doo jàkkaarloog nit ki. waaye mhm. dañ koy gis rek à travers benn liggéey boo xamante ne bii def nañ ko def ko ci benn boîte. mu di ko seetaan xëy na borom moom ma ngay nelaw wala mu ngi tëdd këram waaye théâtre da ngay jàkkaarloo ak nit ñi. Mm-hmm. di def la nga xam ne moom nga leen di wan ñu di ko gis. Mm-hmm. te dara du dox ci seen diggante. Mm-hmm. loolu moom mooy vocation a te loolu tax ñuy wax théâtre parce que théâtre am na théâtre frontal. maanaam nga jàkkaarloo ñoom di théâtre am na aussi lu ñuy wax ci maanaam njëlbeeru théâtre théâtre du géew te ñun ko faral di def. waaw loolu moo waral ngay gis lu mel ni kasak gis lu mel ni sabar. Mm-hmm. xam nga loolu dafa bokk ci théâtre boo xam na ñun dafa juddoo ci suñu cosaan ak suñu aada. Mm-hmm. loolu daal mooy théâtre mooy nga jàkkaarloog nit ñi di def li ngay def. ñu di la gis di ko yëg ci saasi. d'accord kon lu ñuy gis léegi ci télé yi euh, moom nan lañ ko mën a tuddee. waaw li ñuy gis ci télé yi loolu ay film la. Mm-hmm. maanaam euh, nasaraan bi di ko wax téléfilm wala ñu naan ko ay série wala ay sketch. Mm-hmm. waaye nag mën nañu itam ne théâtre filmé. boo mm-hmm. déggee ñu ne théâtre filmé mooy maanaam la ma la wax ci anam yi ñuy defee théâtre mm-hmm. ñu jël ko filmé ko noonu muy mel. maanaam ay nit toog jàkkaarloog ña koy def di leen seetaan. waaw yëg-yëg ba njëy am xam nga du bokk ak li toog di ko seetaan télé sa biir kër. waaw loolu moo leen wutale. waaye tey dafa mel ni théâtre ci boppam mooy bi ñu définiral nii dafa mel ni euh, moo ngi amatul wala sax bu dee am na euh, néew na ci ñi koy euh, seetaan yi li ni mel dafa mel ni téléfilm yi tey ñoo ko ko yóbbee. waaw waa dëgg la théâtre nag sooxee na sooxee na trop te booy xool sax waa effectivement téléfilm yi moom la nit ñi daal gën a di jëfandikoo. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne nag dafa méngoo ak ay xarala jamono. parce que xam nga nit ñi ñoom dañuy dox ak seen jamono rek. Mm-hmm. waaye gis nañ ne itam la ko sooxeel et ñi jàpp euh, waral na ko. Mm-hmm. ñi ci jàpp mooy nguur gi ak ñi nga xam ne borom koom-koom lañu. Mm-hmm. war di gunge ñi nga xam ne dañuy war a euh, jàppale ñi nga xam ne dañuy def lu ñu war a mën a siiwal. te mu wékku ci ak euh, aada. maanaam daal partenaires yi bailleurs yi ak nguur gi. ñoom ñooñu ca waroon a jàpp jàppuñ ci na mo waree boole ci itam nit ñi seen bopp. e tey jii boo doon def euh, théâtre mhm. woote ne maa ngi koy def ci place sàngam e ñee ñëw ñu bari mu mel ni nit ñi cawarte ga ñu waroon a am ci théâtre ngi jàpp lañu koy def mhm. mu jaral leen ñu nga am jël seen xaalis paas dem toog seetaani ko daal léegi desandi te lu ko waral dina am nag ci jëmmi jamono. Mm. dina am ci yenn réew yi. mais Sénégal moom soo xëy na fi def dëgg yàlla. lan moo ko waral nga nga nga jàpp ne lan moo ko waral. waaw mais la ko waral mooy maanaam mbiru jamono rek xam nga léegi dañoo tayal. Mm-hmm. tayal gi weesuwul yow nga ne ah man daal damay li may gënal mooy ma toog sama kaw lal wala sama yakaar jàkkaarloog écran bi li ma bëgg seetaan yëpp ñu di ma ko jox tayal na ñu jël dugg seen oto ànd ak seen njaboot wala ñu couple dem da ba place bañ koy defee. Mhm. ñu toog seetaan ko ni ki ñu daan seetaanee cinéma rek a jamono. Mhm. loolu moom moo sooxee xëy na nag euh, loolu tamit dafa bokk ci jikko yi nga xam ne jamono da ko def ci nit ñi. mais est-ce que jàppale nañ leen tamit est-ce que jàppale nañ leen comme ni mu waree. waaw moom laay wax jàppale gi dafa des. Hmm. lu bari sax euh, jàppale gi euh, ajoo na ci maanaam nguur gi ni mu ñu jàppale jàppale wuñu ko. Hmm. borom koom yi itam borom alal yi ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen. Mhm. Eh, nañ ca waroon jàppee jàppuñu ci waaye nit ñi seen bopp itam tayal jàpp na leen ba amatuñu cawarte maanaam dem jóg dem seetaani théâtre bu ñuy def ca benn béréb sa seen gox. Mhm. wala dee nga am ca fa dëkk. waaw loolu aussi day bokk xam nga ci lii rey théâtre parce que mën loo toog répété lu yàgg ay weeri weeri weer ba def say spectacle. Mhm. organiser wut sa salle di ko def nit ñi wuy wuñu ah xam nga boobaa nag théâtre bi moom <laughs> day daal di ñàkk njëriñ. nga xam nga mhm. nit mënut mënut di yëngu ci lu euh, amul njëriñ wala njëriñ la néew. ndax looloo ndax looloo tax tey euh, acteur comédien yi nga xam ne ñu ngi ci doon yëngu tey ñu leen di faral di gis ci téléfilm yi. waaw moom laa lay wax rek xam nga loolu. Euh, maanaam ku amul yaay nàmp maam. bu hmm. fekkee salle de théâtre yi dañoo tumuranke mhm. te nit ñi bëggatuñu dem fay seen paas ànd ak seen jaboot wala ñu couple dem fay xaalis et pour di mën di dundal di ñaan loolu ñuy wax théâtre mhm. ah ñu ne kon léegi li fi am mooy lan mooy ay série fi am ay téléfilm wala film de cinéma te yooyu comme ñu ngi ci am akas néew kon boog nu ñu wëlbateeku jublu ci loolu mhm. ndax mu tane ndax nit ki kat li muy yëngu day ñaan yàlla am ci da nga am la dundee wala la koy dimbali ci wàllu koom bu njëkk ba tonton Sène gis nañ ne théâtre daan na am lu ci nit di jàng da daan yéete euh, mu daan amal solo lool euh, nit ñi kay seetaan waaye tey gis nañ ne téléfilm yi daanaka li leen di diingat moo ëpp li ñuy jàng ci téléfilm yi. waaw xam nga loolu c'est lu ko waral. Mm-hmm. Euh, man mii di wax ak yow man jamono bu may tàmbali ci théâtre mm-hmm. mu nekkoon ci maanaam tur bu jamonoy tey bu njëkk ba ñoom Abou Camara ak Babou Faye Mokoro Gueye Baye Paul. Mm-hmm. et cetera génération boobu man ci laa tàmbali ci théâtre te jamono boobu dëgg la ñun théâtre gi dañ ko jëloon def ko yarukaay parce que dañ ko daan woowee sax tubaab théâtre éducatif. Mm-hmm. nit ñi daan ko seetaan di ci jëlee dégg nga maam ay jikko yu mm-hmm. euh, loolu tumuranke na ci jamono bii parce que nag euh, léegi li nga xam ne moom lañu def muy production téléfilm yi li ci ëpp euh, ña nga xam ne ñoo lay gunge ci wàllu koom. dañ naan leen ñii nga koy defee fii ngay jaar lii li bëgg nga wane. kon daal dañuy orienter production bi. waaw voilà waaw xam nga loolu bu xasee ba am rek. théâtre ba na mu waroon mel dootu ko mel parce que ñoom dañ koy bëgg a méngale ak jamono wala ñu méngale ko ak seen bëgg-bëggu bopp. Mm-hmm. ba tax na lañ ca waroon a jëlee ci yar wala ci yeete. dafay dégg dindeeku am loo xam ne moom moo fay toog la fay toog mooy lan mooy ñoom dañuy xool rek li ñu bëgg. te xam nga booy xool nit ñi li ñu bëgg léegi li ci ëpp. Mm-hmm. Eh, mooy ay wax ñàkk teggin wala nit ko solo solo bu. tegginewul mm-hmm. wala loo xam ne nit ñi buñ ko seetaanee danañ ci yéemu mu indi coow. Mm-hmm. ñu naan ko bës. dafa mel ni yooyu léegi moom sax la ñu gën a yittewoo ci production yi nga am nga xam ne day am ñu di ko seetaan. Ah, ba tax na yow bo boo bàyyee loolu sax def théâtre boo xam ne dafay yem rek ci yar nit ñi lu yiw loo xam ne lii lu yar nit la loolu dañ ko fay teg bàyyi ko fa dem wuti loo xam ne day indi buzz <laughs> maanaam ci wane ay ñaawteef wax ju ñaw mm-hmm. wala loo xam ne nit ñi dañ koy xool naan acam waaye gis nga seen acam boobu ci làmmiñ layam mhm. parce que dafa mel ni yu mel noonu moom la di gën a seetaan kon daal li ñi ñi li ñi leen di jox jërëjëf jërëjëf dafa mel nii nag jamono bi moo toll aussi foo xam ne fii eh, nit ñi daal euh, maanaam lu yiwa di la ñuy gën a yittewoo te euh, nga loo xam ne yiw na mhm. doy na loolu nag defe naa ñëpp gisandoo nañ ko seen bopp parce que bu ñu toogee ba jamonoy koor sax nit ki dafay woor ànd de koo xam ne da nga euh, daal di gis koo xam ne day ceg daaw romb ci weeru koor <laughs> kon xam ne lii ay jamono daaw ko sa xalaat <laughs> loolu la rek nii bi dafa méngoog jamono daal. d'accord ci méngoo jamono jooju ñu gis ne euh, am na évolution ci production yi maanaam euh, artiste bi démb amaane na la doon laal ci ay cachet tey am na lu ko ëpp ndax li ni mel tonton Sène mën nga ñu ko firndeel. waaw maanaam Euh, xarale yi ak jamono gi nga xam ne koom gi yokk na. Mm-hmm. dëgg la mm-hmm. ñun lañ ñu daan jox ca la ñuy liggéey ca euh, jamonoy jamonoy tey ak i daaree ko ci seen jëlbeen. Mm-hmm. wala sax lu ko jiitu parce que ñun dañ ko doon def te yàlla tax. bëgg théâtre xam mooy lan bëgg mu njëriñ askan wi ci kaw yar ci yeete ak yeewute. te presque daawuñ ci am dara mais léegi nag euh, jamono bi koom-koom bi yokk na. Mm-hmm. maanaam payoor gi ñu ciy ëpp na lañ ca daan am waaye nag terewul ak jamono bi itam euh, li nga xam ne moom la fi nit di dundee ak la muy soxla. Mm-hmm. ba léegi amuñu tolluwaayu euh, théâtre bi ak téléfilm yi ñuy liggéey ñu di ci jëlee loo xam ne mën nañoo dundal dund gu yemb. Mm-hmm. ba léegi pay yi des na des na léeg-léeg nekk ci di ci liggéey. Mm-hmm. waaye da ngay tumuranke xam nga loolu du loo xam ne ñoon ñun mooy ci gënal bu ñu mm-hmm. sañoon. liggéey bi ñuy liggéey payoor gañ ciy am. dafay méngoog ay ay ay ay euh, dégg nga am euh, li ñuy soxla ak li ñuy ci suñu dund. payoor gi daal ba léegi des na. ndax formation bi am na ci solo lool. ndax da ciy feeñ bu ko nit deful. ah waaw waaw loo doonul taalibeem doo doon sëriñam nag c'est que di léegi nit ñi théâtre buñ ci duggee du pour dundal ko waaye pour dundee ko la. Mm-hmm. waaw maanaam euh, euh, jàpp gi gi ko nit ñi jàppoon démb. Mm-hmm. bokkul ak jàpp gi ko jàpp tey jii. léegi nit ki daal xaaral ma dugg ci théâtre bi feeñ ci télé bi wala ñu gis ma fii gis ma faa ma siiw euh, ndax ma mën cee jaaree rek. daal di waaw. li li li may li may ma am ko ci koom-koom. Mm. waaw defatuñ ko daal pour ne ah lii de jumtukaay la boo xam ne war naa ci mën a yar sama askan. Mm-hmm. war naa ci mën a itam jëmmal sama cosaan ak aada. léegi nit ñi loolu nekkatul seen mhm. lu tax laaj bi parce que dañoo gis ne euh, kanam yu bees yi dañoo bëri ci théâtre ña ko doon def mu jaral leen ñu dem jàngi ko euh, ñu bëri dañ leen di tege na jël ñi nga xam ne soit ay top model lañ ay mannequin lañu wala manam siiw nañ déjà daal ñu dugal leen ci théâtre bi. xam nga loolu boo ko gisee mooy li la wax rek ne léegi jamono bi nit ñi dañoo bëgg lu yomb xam nga bëgg lu yomb weesuwul nit ki am lu mu jàng mën ko. Mhm. nga soxla liggéey bu nga teg ko daal di jël kala neex wala nga ne kii moo neex nit ñi wala nga ne kii eh, rafet na neex na wane ma bàyyi nga xam ne jàng na ko mën ko euh, gën ko mën a dégg nga maam euh, euh, def defin bu gën a jaar yoon. Mm-hmm. waaw donc léegi nit ñi dañuy jiital léegi seen bëgg-bëgg bu bopp maanaam léeg sax nga ki kii mën nga ne ko demal toog fële bàyyil ma jël sama mbokk mi wala ma jël sama gel bi wala ma dégg nga am jël kii nga xam ne eh, nit ñi bëgg nañu daal taamu di ko gis. Mm-hmm. kon yow la taxawoon la jóg. dégg maam euh, euh, euh, mbir ma. Mm-hmm. ak la nga ca a wane da nga koy bàyyi teg ko fee jël leneen teg ko fa ngir rek def lu neex nit waaye defatoo jóguloo pour def lu leen jëriñ. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Mody Fall alias Tonton Sène ngay acteur comédien merci beaucoup.